envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. léegi. waaw tey naa dafa wax lu rëy. dane miyaa. oui dama bëgg nga way ndax sama xol sedd na ba pare. macha allah. kon yow defe naa ne sa digganteeg miyaa. du li muy indi. da nga bëgg. waaye bëgg nga nag ku baax. ku ñëwee ci yow doole tey. bala moo woy da bàyyi mu jox la sa kado ba pare. su paree woy gaa yi tourné def leneen. ndaxte sama doom Jeyna ah. daa def lu rëy lan la def dafa am lu mu def ak bokkam kër gay toj Mia jërëjëf sama rakk ji tey bu bésub Jeyna bu ñëwee biin sama rakk ji yàlla na nga gudd fan ñaan ko dama ñëw sa studio may sama am lu ma soxla nga ne ma tijji naa bunt yëpp bu la neexee sax bul fay di yendoog di fanaanoog man gis bés boo ma fayloo woon ma parce que li ngeen def defe naa ne man maa leen ci jiitu ca ñaawuma ci xarit bi benn yoon kon yàlla na nga yegg leen sa sago jëy naa nga muñal sa jëkkër fonk ko ca góorgóorlu te xam ne ndaanaan luy sëy jafe na metti na di nga dégg lu ne di nga gis lu ne waaye da nga góor bu baax même sama sa mag gi nga xam ne dafa bari jom lool hmm. <laughs> yaa bi tukki bi jotee tukki nga waaye bi ñibbi si jotee ñëw nga borom looy laaj ma koy waaye nag laaj jole waaye nag bi cër joxe bi cër jotee rek am nga ko ci réew xam nga loo am ci réew jëy naa ñu ne ko kuy sa idole mu ne Mia Guissé kuy sa idole mu ne Mia rek la bëgg dañu lay ndayale mbaa ñu magale la mu ne cër bi dama koy jox Mia Guissé waaye jofoo ko fexe nga ba fonk sa ndey fexe nga ba am respect ci nit ñi waaye fexe nga nag ba koo romb jox ko ko cër ci li nga rafet day niroog baax noo tudd nga mer foo dëkk nga mer mer ko bari ñàkk nee na boo fekkee ñaar ñuy xeex seetal ki ci gën a ñaaw nga toj nga ba tax xam ne moo tooñ xam nga lu tax na xol ba mel noonu la kanam nga mel waaye gise yow koo nopp mun waaye nag kooree mu kontaan nga ñëw nag yëg woo ko kenn danga nañ gën taal sama mag rek laay àndal ndax moom a saf waaye maa la gën a bëgg nañu delloo la woon fawoo nga ànd ak ami sareel mu baax mi nga xam ne ci farata rek lay dugg umu suñu mélangère bi nga xam ne yàqaloo dara bi yaa gis bu la neexoon nga di ko defal prestation deux cent cinquante mbaa nga naan coppet ci bii taf ci bii bii na ko rajax waaye yaa ko jàpp rek kaay ma wax la ñaar mélangère man naa sarax artiste waaye saraxe woo ko fi mu war a dem rek lay dem li mu war a def rek lay def nga fonk liggéeyam teg ko place jëy naa mais yaa nee na noonu lu mën a toy xam nga lu tax dañu jël cër jox miyaa te coful bés bi fii luy doy amu fi ku yàkkamti demal tëddi dëgg la jone mariage u damay doxal ba mu neex te yi taxaw yor micro bi tant joxuma leen micro bi ko nam kon ku yab rek nañu nañu def la paix rek def ko mbaax dëgg lii ma yor nag ma jëm si ci Dieyna jox ma ëlbatil ma mi yaa gisee sama rakk ji dafa ñëw li ma ne la léegi am nga ñaanu yaay doo torox dëgg la laa fóotal doo tilim Babacar waaw lii ensemble or la Paris mi yaa gisee moo ko jox rakkam Jeyla mi nga xam ne artiste yi bari na waaye danga ne mi yaa rek laa laa laa taamu Jeyna kado baa ngi ni mais yaa jox ko ko gars yi jël leen photo ana sama rakk sama rakk journaliste yi xale yu xam ne ñëw leen jël leen jël leen toog leen rek ngeen jël toog leen ku jug jéem dama leen di neexal naa ne danoo garaam asi moo tax ma naan leen jël leen noonu lii non non c'est xaaral xaaral ñu xool leen journaliste yi jël leen ak a ñëw baax xale yu yaru xale yu bari maanaa ñu ngi ñuy toog wala xëy di ma ngi nii tool dañuy bind de Babacar dañuy xëy naan ci jox ma lii coffre la nee na Dieyla waay man de Dieyla rek Dieyla sama doom ji sama nuroo waale nee na bii bu la mayee yaayam may ko sa yaay tubaarkàlla yëkkatil ma coffre bi ci kaw offre bi nag ku ne xam ne fi mu jugee fan la jugee Ami Chanel mu baax mi nga xam ne lu mu indi ci réew mi griffe la dëgg la diggante Amérique ak Canada la koy nga koy jàmmee ba mu saf dëgg la indi ko ci biir réew mi te dara ñaawu déedéet moo ko jox coffre bi jàppal mu ñaar fukki junni cent mille ñeent fukki juróom benn fukki junni trois cent mille ci mi yaa gisee téeméeri junni cinq cent mille ci bi yaa gisee six cent mille six ci bi yaa gisee cent mille sept cent mille ci borom looy laaj ci doom ji teral naam et waa mbedd mi est-ce que yéen a wooy waa mbedd mi est-ce que yéen a ngi dégg cool neuf cent mille neuf cent mille un million ci sama waa ci un million suma waa ji un million